donte su nekkoon 18 millions de sénégalais yëpp la ñu jël dajale leen dugg leen jam ñaajo ku nekk ñu jox la temps de parole nga wax nga ne la bu mu bëgg élection ñu def ko 2027 wala 2029 wala même 2 juin du tax ñu mun ko def date boobu parce que constitution moo nekk ci kaw lépp et que wax na ko et que Macky le président de la république amul décision wala décret bi muy jël te ñu duñ ko attaqué au niveau de conseil constitutionnel pour que mu kase ko et que mu tenir les élections à date issue waaw loi d'amnistie moom luy suñu position ñu ànduñu si lu jëm si loi d'amnistie parce que dañoo jàpp ni loi d'amnistie bi président Macky su toogee ba 30 jours avant muy dem mu ne day teg loi d'amnistie defu ko pour keleen lu dul pour boppam ak ñu mu àndal daf ko def pour aar boppam pour aar ñu mu àndal pour que jumte yu ñuy def diggante 2021 ba 2024 muy ay nit yoo xam ne boom na leen ñàkk seen bakkan ñi ñu gis ni yàq nañ seen commerce ñii seen investissement yàqu na dëkk bi taxaw na l'image de la démocratie sénégalaise s'est érodée yooyu la bëgg ko naka la koy rafetale balaa muy dem